suma mag di ma conseiller fu mu mën a nekk ma suivre aussi yag suivre sama cursus muy grand Guy Sepène moom di référence tay ci musique ndax Sénégal kenn dotul wax kilifa yi nga xamné ñoy décider ces musique bi ba ci autorité yi té consulter wu Guy di nuyu aussi mon frère ñu bokk métier mi et que am respect bu bari un très grand musicien avec un très grand cœur di nuyu nak sama xarit suma cheikh veux dire. sank limu wax li mu naan bu la kenn avant kenn di la gëm man maa la njëkk gëm dëgg la e, di nag mujjee sama rak maam Cheikh mam Cheikh man duma gis producteur mais petit frère laay gis sama rak laay gis ndax li ñu boolee deret la ndax boo nee kër Alaaji Maada Seck kër sama tante Aïcha Mbaye ne kër Biram Ñing loolu dafa yàgg boobu ñun sax juddooguñu et ma ñëw nag tey kontaan fekk fi famille bi yëpp donc muy plaisir boo xam ne lu tooy ci sama xol la Mame Cheikh di xale ma yar ko usine ñaari tali mu yàgg bëgg nag ñafe yàgg bëgg góor góorlu yàgg nangoo liggéey ba yàlla dogal tey mu dem ba dugg nag ci musique mu nek aussi passion mën naa ni 2007 la ma ñëk a nante mu metti won trop bob mi ngi dogo démarrer mané ko mam bayil ma déplacé wu man rek fexel nga dajalé ay musiciens parce que bo naré jël groupe bi yëpp yóbbu ko day metti mais man je peux ma déplacer nga dajalé ay requins ñu dem ma japp ci comme ça ñu mëna def événement bu am solo Bob mi ngi doora tambali

di ma damoo di ma sagoo nga fek ma fa kon je pense que ni tay li nga def ambition la et que vas-y fonce donc bi yalla dogalee bakan dem Europe ci confinement bi dem uti won ay matériel fek na bobu presque démarré woon sama album bi waroon guen ndax bi ma Prince Art rek l'a commencé pour gagner suma album ak suma label PDG ma ànd ceeg suma rak Maxtaar ñu ciy liggéey ba jot a defar sax ay morceaux suñu liggéey rek dama koy envoyé Bakar ne ko booy déglul te nga préparé parce que boo ñëwee rek dañuy dugg ñu nekk ci mouvance boobu parce que man liggéey rek laa gëm man gaw ma leneen gaw succès gaw ma parce que comme ni ko Ale waxee fi ma jaar moo metti man maa ngi juddoo usine ñaari tali yaroo ginnaaw raay teel a bàyyi sama jàng dem jàngi métier Parcelles Assainies donc mu metti trop ma juddu ci famille boo xam ne nag askanu ngéwél lañu waaye dañoo yàgg am jom yàgg a bëgg liggéey donc ma nekk ci yoon woowu et que dama gëm ni nag àdduna lu nit di am rek liggéey moo la koy may moo tax man awma dimanche awma samedi man bés bu yàlla sàkk damay liggéey loolu moo tax ñu naan Pape Diouf dafa timide Pape Diouf dafa yaru Pape dafa dal parce que aw ma jot damay liggéey rek ci loolu rek la laay sax donc bi loolu amee baakan nag dem Nantes seeti suñu doom jooju Badal daje fa ak maam Cheikh ñu woo ma téléphone ma kontaan trop ma kontaan lool lool lool lool mu ne ma mais booy ma ne ko waaw mu ne ma maam nday ñu ngi doon waxtaan mais dafa bëgg ñëw Sénégal liggéey si vraiment nee naa ko ñi ngi préparé suñu album mais nee na bu sañoon moom it sa rakk la te dafa am ci yow cër bëgg na ñëw jàppale la ci liggéey bi ndax nag rakam magam nga te màgg na passe ma maam vraiment ñu tooñante ma koy fàttali démb ñuy waxtaan mu ne mën a grand ñun say rakk lañu te ñëwuñu fii Europe di nelaw te ñun dañ lay tiitaroo foo xam ne sax nekkoo fa et affaire business bugguma sax mu dox suñu diggante mais man maa am plaisir u tey dama am label ma bëgg nag dooree ci yow sa albam dama bëgg nga jox ma exclusivité bi ma def ko mais loolu keroog j'étais fier ndax loolu laa doon ñaan yàlla ma ne ko maam mu ne ma waaw ma ne ko loolu bul yeggalee ñëwal am nga loolu bul sax xalaat ndax man samay mbir géej la dafa yaatu rawatina nag yow ngay sama rakk ma yar la kon tey fekk nga ma dugg ci suma production ndax lépp a ngi fi lépp mat na waaye nag tey li laa doon ñaan yéen samay rakk ngeen dem di ma suivre ngeen di gis sama liggéey partout dans le monde ba am yëg-yëgu ñëw nag jàpp ci liggéey bi ndax nit ku nekk loolu ngay ñaan yàlla kon ñëwal bul xalaat dara li nga bëgg am nga ko bu doyul sax man ma jël def ci mu dolli mu ñu dolli mu nekk nag lu rafet bi loolu amee ma waxtaan ci ak ñi ma ci war a waxtaanal muy suma staff woo Maxtaar suma manager woo Xaadim sama rak ñu waxtaanee ko ñoom ñëpp ñu kontaan ci ñu ne ma mais maam suñu frère la na ñëw bu ñëwee dañ koy ubbil na ñëw toog jël affaire bi parce que nag mérité na ko.

maam toqiwul sonnul tàyyiwul léeg-léeg sax dama koy gëdd naan ko booy dee ma wax parce que tellement daf ma ruus ba nga xam ne su toogeek man du bëgg a développer il faut mu jaar ci xaadim wala mu jaar ci baakan pour mën a waxtaan ak man mais loolu lu baax la parce que respect la ndax nit bu la ruusee rek mooy respe am na et di wax nag que ni ñun liggéey rek la ñu gëm ñi ngi préparé album bu am solo album bu mag comme ni ko Bakane waxee ndax ñun suñuy def suñu liggéey duñu duñu defantu dañuy liggéey liggéey bu sérieux ndax Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar kon album bi alhamdulillah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi eh, ñu ngi si liggéey bu am solo même bésu tey bi sax munoon na ñàkk ndax je pense que ni tey boo duggee studio di liggéey li la sénégalais di xaare mooy li nga liggéey nga pare exposé ko presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am si man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jëri ngoone production ñoo yore exclusivité bi et ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la te amna jom xalé la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma wax ne ko mam bu ragal yalla dina def sutura ndax fi nga ñew si sa mak nga si sa mak nga ñew si sa xarit nga ñew si sa ay mbokk nga ñew et ñing fi fekk aussi dañ lay ubil à bras ouverts muy suma manager Maxtaar di sama khadim ak tout le staff ñom Jibi Fay ñepp nga fi su ma un staff bi ndax la musique laaj musique la coalition beaucoup ndey a Sofia wax na donc ba ci artistes yi nga soit sentir nañu tay liguey ak mam Cheikh bu len am jeune ñew len Sénégal ben la kenn mënu donc enregistré 20 titres la di enregistré donc, euh, mais si nous parlons de 23, nous nous sommes par rapport au timing que nous avons, si le temps permet de nous gagner tout, si nous avons le temps de permet, maximum nous gagner 15 titres, Inch'Allah. L'album dina en décembre, le 4 novembre. Donc, c'est bon, des thèmes surprises, vraiment. Beaucoup nous dévoiler. Euh, mais dans ben bi nga xamné dina ko ci wax moy album bi jigéen ñi la ko parce que léegi Sénégal dafa bari ay jomma waaw jo jomma ñaaw dañ fi bari trop ndax dangay gis koo xam ne day ñëw fekk jigéen te jigéen dama sentir ne jamono yu mujj yi dañ leen di sonal di leen mettital di leen nax da ñëw fekk xale bu ndaw kër yaayam nga màkk yi ñëw maanaam nax ko wala nga fekk ko muy jàngi wala muy dem ca marché ba nga ñëw maanaam bëlde ko fexe ba tooñ ko après nag wan ko ginnaaw bu ko defee xale bi day découragé loolu mooy waral ñenn ñi di taxawaalu wala ñu dugg ci lu ñu warul dugg donc jomba ñaaw yi nag laa bëgg a xam naa ne moom sama gars yi dinañ ma sànni ay xeer mais ren moom benn morceau boobu laa ci maanaam may exclusivité sénégalais yi mooy les gars attention

waaw ndax nag doom doomu géwél laa nag wax dëgg yàlla ah. kon ñaari thèmes yooyu na ko sénégalais yi retenir muy jumeau sama diggante ak woy woy sama seex bi moo ma sagal muy jomma ñaaw donc maa ngi nag gàttal kàddu yi ba incha allahu rabbi album bi génn ndax xam naa ni Pape Diouf chaque année bu jógee studio dina ne ah sa waay fan lay lan lay def nag lan la war a def waaye nag loolu moom dañ koy fanaanoo et que loolu laajul communication bu bari loolu dëxañu la laaj mi ngi melni rek mbeur mu wara dem ci làmb ja alaaji Bakay yaa ko gëna xam communication bi dang koy gattal di yow 4 h du matin di entraîner di def 3 séances par jour di teel teud tëdd fekk sa bop denc sa bop ngir bo génné say supporter né ah sa way kat nelawul donc tay loolu moy li nga xam ne moom moo ñu motiver et que ñu ci ciy liggéey liggéey bu am solo donc ma ngi remercier ñi fi teew ñep la presse di remercier suma xarit. suma doomu ndey muy Iliman Lam tey ci bérébam la ñu defee cocktail bi di remercier aussi sunu sœur Mamiko bu Tain Chic maa ngi koy remercier bu baax mami vraiment merci ci organisation bi lépp mucc na ay waa usine ñaari tali ah ñoom Kumba Diop ñoom El Hadj euh, euh, nu mu tuddati Ablaye Dieng xam nga Paco Papi Omares tey ñëpp teew nañu vraiment yal na leen yàlla defal sutura kontaan nañu trop Baye Demba sama rak riche baba gis naa leen kontaan naa trop trop trop vraiment merci yal na yàlla def réew la ah.